bàyyi na kooku wa in rajaha bu delloo ginnaaw nag ginnaaw bi loolu ñu wax amee mu ñàkk tëb taay ja delluwaat ginnaaw dellu ca taay ja ba del mu faaraxati ginnaaw ba oom yaak yoxo ya tàqalikook suuf waaye jàngul feq mbaa boog fàtte na ko mbaa xamu ca dara mu delluwaat ginnaaw nag dem toog di taaya wa ba del xiyaami te ginnaaw taxawaay ba la delluwaat ginnaaw toogaat di taaya saahiyan ngir juum mbaa ak ñàkk xam aw xaamidan mbaa mu tey ko su boobaa ne wéyal ak julleem saaxat dina wér nag salaatuhu julli ga waaye nag wa sajjada baxda salaami na sujjoot baxda salaam muy ginnaaw sëlmal nga ne lu tax baxda salaam mu ne va et vient mu def daa yokk ci julli kon nag na sujjoot baxda salaam kon ñaari attee ngook bu jëkk bale amagut va et waaye bu mujj bi dafa am va et moo tax bu jëkk ba doon xabla salaam lu jiitu sëlmal bu mujj bii ñu wax nag doon baxda salaam muy ginnaaw sëlmal bàyyi na kooku waman nafaxa ku ëf fi salaat yi ci biir ak julleem saahiyan ngir njuumte kon kooku yokk na ca julli lu bokkul ca julli sajada na ko sujootal baxda salaami muy ginnaaw sëlmal ndax ëf ga la ca yokk te waru ko ca woon a yokk bàyyi na kooku wa in kaana xaamidan bu dee nag nekk na koo xam ne ëf ga mu ëf moo ko tey batalat salaatuhoo julli ga yàqu na na bàyyi julli googa te julliwaat geneen julli wa man atasa ku tisooli fi salaat yi ci biir ak julleem falaa yastaxil soxlawul muy wax bilhamdi ci alhamdulilahi na ko wéyal ak julleem rek ndax ma nga cig tudd yàlla kon jarut mu ko wax wala yaruddu alla man samatahoo ka ko wax ne yarxamukallaa dégg tusooli ga wax ko baat boobu tamit ne ko yarxamukallaa bu mu ko delloo baatab yarxamukallaa joojee bu déggee ku tamit moom mi julli wala tu sammitu bu ko wax yarxamukallaa bu mu ko ca moom mi julli bu mu ndokkeel aatisan aji tisli ja fa xiina amidallaaha bu demee nag tisooli wax alhamdulilahi mbaa am ku ko ndokkeel ne ko yarxamukallaa mu wax kooka yarxamukallaa falaa saya ali dara waru leen ca yooya waaye nag mën naa ñàkk waaye buñ ko defee ci njuumte mbaa teyeef dara waru ca wa man tasahaba ku bel bel fii salaati ci biir ak julleem sadda faahu na taf gémmiñam bélbél mooy ŋaang ngelaw lu bari génn loolu yi dal ko gëmmintu mooy bélbél di waaja nelaw ku dal ci biir julli tafal sa loxo sa gémmiñ waaye dara waru ca wala yanfusu ilaa fi saw bihi kii julli bu bëggee tufli bu mu tufli lu daa jël kaalaam teg ko ca gémmiñam yàbbi ca tuflit ya ndànk bu ko kenn dégg mbaa mu jël loxo mbubbam mbaa mbubbam taf ko ci gémmiñam yàbbi ca tuflit ya ndànk bu ko kenn dégg tax mu ne na tufli ca loxo mbubb ba mbaa ca kaala ga min xayri ixraaji ci lu dul du génne uróofin aw araf bu kenn dégg dara ca ba muy tufli na teg loxo mbubb ba mbaa kaala ga ndànk ca gémmiñ ga puus tuflit ya ndànk ak làmmiñam mu wàcc ca kaala ga ndànk mu xëcc ko ndànk na ko jaral tufli ci yéeréem ngir wekk yàlla allahu akbar waaye bu génne araf de bu génnew araf ca tuflit wa bu ko kenn dégg wa man sàkka fi hadasin kuy sikki sàkka ci sa njàpp toj naam tojut aw najasin mbaa sobe taq na laam taqu la fa tafakara fi salaatihi muy xalaat loolu ci biir julli gi xalilan temps bu néew su ma ta yaqana taxaarata mu wóor ko ne nag ah man kat ñàkk a mii ma doon xalaat nag maa ngi saa laab maa ngi am njàpp te samay yére sobe taxu ci mu am ceg wóolu su boobaa diggante booba mu doon xalaat loola te nekk ca biir julli ga fala saya alayhi dara waru ca du tee julli baax wa manil tafata képp ko geestu fi salaati ci biir julleem saahiyan ngir juum fala saye alayhi dara waru ca du tee julli baax wa in tahammada bu fekkente nag moo ko tey fa huwa loolee mu def makrohun lu ñu sib la waaye tamit du tee julli baax tab sujoot waru ca wa innis tadad baral xiblata bu fekkente ne jullikat bi dafa dëddu xibla maanaam dafa moy penku xataa na dagg salaataho julli ga xataa salaata na dagg julli ga commencé waat geneen julli ginnaaw bu jubloo penku ba mu wóor wa man sàllaa ku julli bi hariirin fekk dafa sol sooy yérey sooy ku ko sol di julli aw bi sahabin mbaa mu takk oor di julli aw saraxa mbaa muy julli sàcc yëfi jaambur ca biir julli ga na fi salaati ca julli aw nasara muharraman mbaa mu xool araam te mi ngi ci biir julli yooyu ñu joxoñ yépp fa huwa aasin ka def loolu aji mooy la sunu boroom ku mooy yàlla la dinañ ko tegal bàkkaaram booba ca balaas ba ñuy teg ay bàkkaar keroog pencum yàlla waaye nag teewul wasalaatuhoo julli ga saxiixatun aji wér la waaye mooy yàlla yooyu ñu joxoñ nag te ñu tere ko te mu def ko dinañ ko tegal ca balaasa bàkkaaram yal na ko yàlla jéggal ba yiwam ëpp yu bonam mu dem àjjana amin yaa ngi jàng téere Laxdari bi nga xam ne téere bu ndaw la waaye gaaw lool man lool jàngale diine rawatina mbir julli te sang ba ñu waaye Abdurahmaan Laxdari bind ko te mbooleem ci pays jullit yépp koy jariñoo ngir man gi mu mën a jàngale diine rawatina mbir julli yaa ngi ci page 49 wasalaamaaleykum